considérant le soutien sans faille que M. le maire Mamar 6 apporte à ce mouvement en particulier et en tout ce qui touche l'épanouissement de la jeunesse et au développement de la commune de Kermoussa. Considérant le bilan sportif du maire sur l'ensemble des compétitions décentralisées, le mouvement associatif à son unanimité porte son choix sur le candidat Mamar 6. ñun ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñoo jiite le mouvement associatif jiite sportif yi muy ñi nga xam ne ay footballeur lañ muy ñi nga xam ne dañuy bëree muy ñi nga xam ne dañuy def arts martiaux ak beneen xeetu sport bi ñuy def waxtaan nañ jël seen baat ni Momar Ciss mooy seen candidat ndax tey gis nañ ni département de Thiès Momar Ciss mooy maire bi nga xam ni lépp lu mu fiy def amul benn maire bu koy def ñoom ñoo ko wax maire waxu ko ñun nag ñu ni les élections du 23 janvier bu neexee yàlla dinañ def luñ man ak luñ mënul ba tegaat Momar ci bokk Mbawde ndax waaw ndax ben mag daf ni so amé lu bax dang koy téye té Momar ku bax la amal njariñ askan bi kon dinañ xar suñu tàng tubay ba tegaat ko fi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gëreum wa salam